mais dans cette situation là le premier ministre bu bañee dem defi déclaration politique générale ne da koy def devant une assemblée populaire euh, lan moo war a nekk l'attitude du président de la république dans cette situation bi nga xam ne moom moo war a jox injonction au premier ministre non déjà loolu li ma doon waxee président Macky Sall ñu ngi ñaan yàlla ñu bañ a fii article 52 de la constitution sénégalaise yooyu c' est ce des armes nucléaires da koy am rek mais doo ko utiliser dañ ko def nii rek ci système bi pour au cas où suñu demee ba musiba am te musiba kenn ñaanu ko loolu Nobel premier ministre tamit warul dem ci mbedd mi naan damay bàyyi assemblée nationale bàyyi député yi bàyyi fu Mamadou Dia tax fu Mamadou Dia taxawoon def déclaration de politique bàyyi fa Abdou Diouf taxawoon def déclaration de politique générale bàyyi fa Habib Thiam taxawoon Mamadou Lamine taxaw fa Mame Madior Boye taxaw fa Idrissa Seck taxaw fa Macky Sall taxaw fa Mohamed Dione taxaw fa ñëpp taxaw fa nga ni man du ma def foofu sama déclaration politique ci mbedd bi laa koy def loolu pour man du ma wax sax affaire droit man parce que man juriste la boo xamante ne dafa am lu ma ëpp lu ma gëm loo xam ne moo nekk au-dessus de la loi mooy la république la république l'ordre républicain te gëm naa ne aujourd'hui l'acte le plus républicain mooy ñëw def déclaration de politique générale fi nga xam ne ñi la jiitu ñëpp ak yow soo fi jógee ñii ñëwaat ñi lay wutu nekk premier ministre ci histoire Sénégal ñëpp foofu la ñuy defee seen déclaration de conditionnement ça n'exclut pas maintenant nga def jury def boo xamante loolu mën nga def leneen mais loolu ngay def du déclaration de politique générale te nag su fekkee rek da nga ko bëgg def nag en dehors de l'Assemblée nationale su boobaa nag malheureusement da ngay wàcc le cadre républicain te ñun ñëpp nag dafa am loo xamante ni moo ñu sut moo ñu gën sax ñun ñëpp mooy nag république bi ñu bokk le pacte républicain loolu la ñu war a teg ñun ñëpp au-dessus